génn APR ñëw ci ARC actuellement ci ban liggéey ngeen nekk. waaw gis tey mi ngi nekk si liggéey bu am solo ARC amul jotu kon les les gens de de de Benno kon li ñuy faral def oppo opposant yi opposant bu judd rek jéem a def ñu xool nan la ñuy jéem def pour jéem laa liquider ARC mi ngi si région yi mu ngi si village def tournéem kon ñoom waa bennoo ni nga ko defee di nga xañ yeneen opposition bi. ñun dund na ko xañ ñun nañuy tourné dox suñuy dox du xool village yi du xool lan la Sénégalais yi jàkkonteel si ay coono si ay métital. mais yéen est-ce qu'il y a même des tentatives pour arrêter que yéen yéen a ngi doxal on vous voit hmm? xool lan la Sénégalais yi di jokkonteel si ay coono si ay métital si ay métital samedi ak war naa def euh, <coughs> raison kii Casamance bi yëpp Ziguinchor Sédhiou Kolda war na fa def quinze jours villa Asie kon ni mu koy ni mu koy jàkkoonteel gis nga Aïssa Sénégalais mais tey boo demee village yi gën a sooy Sénégal tey sa yam di raw Aïssa da ngay gis jigéen bi bu bëgg a matu am oto bi koy yëpp pour dem matandike pour dem matu sa ay serat la nga teg si génération bu ñu toll Aïssa su may ne Sénégal am na ay école yoo xamante crinting sàkket la nga ràbbee école école yoo xamante taawu ban sax amuñu ko ay briques la ñuy teg si jamono bu ñu toll nii nga xam te ñi ngi jiñ les gens nga xam te ministre bu ndaw noonu Sénégal leen jël ay détournement de fonds publics ay milliards des milliards yoo xam te ne moo dem faj tur yooyu tey su bu la ko waxee Aïssa say am te daw Aïssa gis nga jeunes yi jeunes yi tey di xaw tey songu géej bi ñaata jeunes Sénégal chaque jour ne ñaata jeunes ñi ngi xaw si géej bi parce que amatuñu benn yaakaar espoir dara amatuñu ko seen réew ndax am tiitaange seen réew parce que ce pays là geste bu ndaw même même bay dox bay dox sa digg sax ne la acte de trahison. ñu ne la. acte de trahison. d'accord. bay dox si digital yi si dëkk dëkk dëkk dëkk si dëkk bu legal dans un pays démocratie jàpp yël yóbbu kaso